Assalamualaikum mbokk yi euh, ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci ak santam euh, di remercier ñi nga xamante ni ñëpp cissalbi nañ ci salle bi euh, jiital ci aussi presse bi parce que tey li nga xamante ni moom la ñu fas ngir mu siiw ñëpp mën ci jot yaakaar presse bi rek ñoom ñoo mën kon dañ leen remercier bu bah bah baax ci seen liggéey gis nañu ko ñu ngi leen remercier bu baax a baax tey nag dafa doon bu am solo bus bu am yitte ci li nga xamante ni mooy suñu liggéey en tant que ADTI ADTI di association doomi Thiès en Italie. action bi ñu njëkk def mooy dafa am Thiessois yi nekkoon foofu Covid bi tax seen liggéey arrêté amatuñu woon wax daanaka luñ doon dundee avant gouvernement boo fa nekkoon jamono jooju di wax ndimbal fekkoon na yi doomu Thiès yi dajale seen biir di dimbali Thiessois yi fa nekk ndax dañoo newoon ne doomu Thiès warul nekk biir itali di di di am tolof tolof te ñu jun ñëpp ñu jógee cees bi ñu paree ci loolu nag ci la ñu waxtaanee suñu biir ne ñun ñii ñëpp ku ci nekk amaana koñ ba nga dëkk am na poste de santé wala amaana koñ ba nga dëkk am na structure ba nga xam ne boo fa duggee sa yaram day daw ndax amaana doo fa fekk lal wala boo fa fekkee lal doo fa fekk mat laa wala boo fa fekkee mat laa dara ba nga fay fekk day doy waar ba nga xam ne ne ñu ne ku ci nekk war nga mën a dugal sa loxo ndax na ma ko waxee woon ñun ñii ñëpp ñenn ñi Thiès lañu juddoo ñenn ñi Thiès lañu yaroo ñenn ñi Thiès lañu jàngee ku ci nekk Thiès defal na la la nga xam ne ne mënoo koo fay lu dul jéem a fexe as tuut li la yàlla may wala as li nga mën nga delloo si waat ko cees te loolu la waa arrêté yi taxawee. looloo tax structure yi nga bëri dimbali nañ ñu commencé par conseil départemental de Thiès bi nga xam ne ne tey fii la ñuy defee point de presse bi don bi ñu njëkk indi muy don de 30 millions ñoom la ñu woo jox leen ko ndax boobu xamuñu guwoon nit ñi ñoom lañ ko jox ne nañ ko distribuer seen bopp. ba ñu paree ci loolu ñu ne ah ñun ko dañoo bëgg li ñuy joxe. yegg ci askan bi ci ñuy jëgal suñu bopp di dem ca poste de santé yi directement poste de santé yi ñu dimbale nag dimbale nañu bu Mbour 3 bu Sud Stade bu bu daru salam, bu R100 bu randulen, bu tahikau, bu Mbour 1 bu ker Sayib doy, bu Cité Ñax bu ker ablayah Yaxin Diop bu Ngunjaan bu mboro bu Bangaj Samb bu noto, bu ker Muso waaye surtout nak dimbale nañu hôpital Maam Abdou Aziz Sy bu Tiwaawan bi ñu paree ci loolu tamit dimbale nañu maison d'arrêt correctionnel de Thiès mooy ñi caabi féete gannaaw nga xam ne mënuñoo dem ñu demoon fa yóbbu fa dimbal dem nañ fa fax ñetti yoon ndax def nañu 6 mois yu nekk ñu dem fa bu ñu demee yóbbu leen la nga xam ne ne lu ci bëri dañ koy soxla ay détergent ay drap de lépp la nga xam ne daal ñoom ñi nga xam ne caabi féete nañ ko gannaaw dañ ko soxla yóbbul nañ leen ko préfecture de Thiès ak mairie Thiès ak ñetti mairie yëpp Thiès est ouest dem nañ fa yóbbu leen ay masque ndax période boobu dañ ko doon soxla ñu yóbbul leen ay lot de masque yu conséquent yi nga xam ne ne moo nekkoon suñu apport bu ñu leen di jox waaye tamit fàttewuñu leen centre social bu Thiès ya nga xam ne ne dimbale nañ leen bu baax a baax institut national INEFJA aveugle yi suñuy rakk nga xam ne ne yàlla dafa def ne seen gis-gis dafa doy waar gisuñu bu dimbale nañ leen dimbale nañ tamit handicapé yi nga xam ne ne ñoo nekk Mbour 1 nga xam ne ci ay chaise dañuy toog ñu yóbbu leen matériel bu am foofu solo don nag bi nga xam ne ne moo ñu gënoon ñor ñun ñëpp ba nga xam ne ba ñu ko waxee tamit kenn teewul mooy morgue bi nga xam ne mi ngi nekkoon jaxate géej teeñ nga xam ne climatiseur ba dafa yàqu woon ba néew yi ñu fa daan denc di xaw a taga témbe bañ ko yëgee membre yëpp a ci jàpp ba ñu defaraat climatiseur mu doon doo yi ñu joxe yëpp boo bokk na ci ñu gën a marqué ñun ñëpp dimbali nañ tamit benn maire ba nga xam ne ne benn euh, assistant sociale moo ñu ko signalé mu dëkkoon moom kese dëkk bu dëkkin bu xaw a doy ñu tabaxal ko nekk defar ko douche jëndal ko lal ak euh, matla ba machallah allah waaye loolu lépp buñ ko mënee ñii di cotiser tax ak partenaires yi mais loolu yëpp buñ ko mënee dafa am équipe ba nga xam ne ne moo nekkoon fii sur place ndax ñun ñi ñëpp ku ci nekk ñi ngi Milan ñi ngi Brescia ñi ñoo ngi Lecco ku ci nekk dëkk ya nga nekk Italie yaa ngi fay liggéey doo mën a nekk chaque fois fii sur place mais dafa am équipe bu nekkoon fii ba nga xam ne ne bagage yu ñu yónnee ñoo dimbali bu baax ci tetu équipe boobu Mafal Seck Assane Diakhoumpa ak Baba mbay fi ñu toll nii nag dañuy tàllal loxo Ceesuwaa yi nga xam ne ne ñoo ngi ci diaspora bi fépp fu ñu mënti nekk ndax amaana suñu njëlbeenu jóg moo doon yam biir itali ba tudd association doomi Cees yi nekk itali ñu tàllal képp kuy Ceesuwaa ku nekk itali ñu ne nga ñëw dugal sa loxo ci association bi ndax xam ne ne boo ko defee tamit def nga sa wareef ndax Cees desalatu la dara bu ñu tàllalee ñooñu loxo ba pare ñuy tàllal loxo bépp moodu moodu ak faatu faatu bu nekk ci diaspora bi te dëkk Thiès waaye ñu tàllal loxo tamit autorité département bi ndax ñu li ñu leen di wax rek ñëwuñu pour ñaan leen mais dañuy bëgg ni ko président di waxee bu ñu soxlaa yenn këyit yi ñu facilité ñu ko ba nga xam ne ne li ñuy indi duñ ci am ay jafe-jafe waaye tamit ñuy tàllal loxo suñu njiitu réew le président Bassir Diomaye Diakhar Faye ndax kat seetlu nañu ne ñoom ñëpp buñ ciy campagne ñoom ñëpp ay dem ci diaspora bi ñu ñëpp ñuy soxla waaye ñun bu leen di soxlaa duñu leen di gis bu bëri comme moom nag mooy bàyyi njaboot moom ñu njabootee ñun ñëpp ñun doomu waa Thiès en tant que njabootam ñu ngi koy tàllal loxo ndax ñun kat feeñu ne bu ñu tamit suñu xel a fi suñu xol a ngi fii ndax moodu bu njëkk yeewu lu muy njëkk xalaat woo njabootam bi nekk fii waaye tamit bu weer bi deewee lu muy xalaat kon de manière ramassée loolu lañ ne kawah. dinañ leen ko wax. wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare li ñuy njëkk a def mooy di leen balu àq bu baax ci coono yi kenn ku nekk xam na ni tey bisu dimanche la jot amul kon buñ ñu mënee daje mbooloo mu toll nii mel na ni bis bi yitteel na leen kon ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax di leen ziyaare di nuyu bu baax presse bi waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoo di ñin àndal liggéey bi di nuyoot ñi nga xamee ni mooy ay kilifa yónni leen ci bis bi ngir ñu teewe ko di wax ni euh, ADT yi muy association doomu Thiès en Italie mu nekk association boo xamee ni ñi ngi ko créé en 2019 sabab bu association bi nag mooy danoo ñëwoon en 2017 fii Thiès ñëw vacances yàlla def ñu dem hôpital régional seeti fa benn malaat biñ gisee malaat bi mu tëdd ci tëdd ci laa kese ñu xool li ko wër yépp kenn ku nekk tëdd ci matelas kese ñu ni pour pourquoi pas ñun en tant que doomu Thiès yi nekk Italie mënunoo jëm ci lii dara ñu xool ba xam lan lañ ci man en 2017 ñu créé li nga groupe tuddee ko groupe Thiès ku ñu xam ku dëkk rek ñu la ci en 2019 ñuy waxtaan ba ni léegi waxtaan bi ci groupe bi doy na nanu à Brescia en 2019 pour créer fa tey li nga association doomu Thiès en Italie di sant yàlla bu parce que ñii ñu wër tey jour boobu ñoo ñu wëroon ñu waxtaan pour xool lan la ñuy jàppalee ñun ñu nekk doomi Thiès lan la ñuy jàppalee raison bi nga xamee ni Nous raison wu Thiès ci sunu doole ci sunu am-am ci sunu xalaat ak expérience bi nga xamee ni sunu borom may damay wax ni jour dama wax am solo dama leen wax ni leen yàlla def na association bi bu demul bu yóbboo ñu bañ a créer créer waat beneen association lu tax ma waxoon ko mooy dama gisoon personne de ressources yi nga xamee ni toog nañ ci table ji kenn ku nekk sa jaar-jaar kenn ku nekk am minimum vingt ans d'expérience ci association tey Alaaji Lamine mii muy Alaaji Lamine Jong kenn ku nekk xam na ni

ci lan tàmbalee liggéey bi mu doon liggéey boo xam ni dara dara dara lalu ko lu dul yéene dara dara lalu ko lu dul xam ni dañ fee am ay mag am fi ay rakk am fi ay papa am fi ay nijaay am fi ay famille te ñun même bu fekkee yoruñu am nañu benn expérience ak benn expertise boo xamee ni war nañ ko mën a jariñ ñi nga xamee ni moo di moo di moo di cees ci lan tàmbalee liggéey bi nag euh, sunu boroom dimbali ñu ubbil ñu bunt yi ba ñu am récépissé au niveau de l'Italie am sunu compte waaye ñu am ko fii nga xamee ni moo di Thiès nga xam ni tey association bi niñ ko reconnaître en Italie noonu leen ko reconnaître fii nga xam ni moo di Sénégal mooy lu am solo ñu commencé liggéey bi ñuy liggéey ñun ñëpp dañoo d'accord ci ni ñun xaaruñu dara ci luy jógee cees di ñëw ci ñun mais ñun daal nanu xool ba nan la ñuy jëlee tey li nga xam ne moo nekk Italie indi ko fi nga xamee ni moo di moo di moo di cees ci raison bi ñu daal di tàmbalee ci ay dara ni nanu fexe ba hôpitaux yi nanu fexe ba case de santé yi ñëpp foo duggati di nga am dara boo xam ni ca ngay lal moom la njëkk a indi indeet ay couches xam naa ni euh, sunu sœur dina ci soxna Oumy dina ci ñëw mais li nuy euh, taxaw it wax ko moo di ñu ngi sant yàlla bu baax ci autorité yi nga xamee ni nekk nañ fii jàppale nu ci liggéey bi parce que tey bépp maire boo xam ni yaa ngi ci région bi bu nu liggéey ak yow du nu lim mais bépp maire bu fi nekk rek jaaroon fi wala nga nekk fi am nañ ay relation yu rafet rafet ak yow di gërëm bu baax le préfet ci accueil bi sous préfet ci accueil bi gouverneur ci accueil bi parce que ku dégg rek geste bi li ngay njëkk a def moo di ah yéen nan la ñuy def ba jàppale la ñu ne ñun li ñu bëggoon ñu jàppalañ ci rek mooy ñu fexe ba këyit bu ñu soxla mu ñëw fii wax dëgg yàlla ñu yombal ñu ko ba léegi des na waaye sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax ndax tey ñun suñu objectif li nu bëgg tey mooy taax yu rafet yi ñuy gis ci télé yi hôpitaux yi nga xamee ni am na fa ñu war buñ ko mënoon a déjjati ñëw indi ko teg ko Cees gi maanaam du fanaan ñu nekk tëli yee nga xam ne dañ fay daw nga xam mën nga dawal cax di gëmm buñ ko mënoon dindi indi ko fii ci maanaam Sénégal maanaam ñu def ko waaye nag mu njëkk a Cees kon loolu mooy li nga xamee ni mooy sababu ADT yi di sant bu baax ñi nga xamee ni ñoo ma wër parce que mbir mi mënoon nañ koo yëkkati rek bun bu dee ñun rek du ñu dem parce que am nañ foofu ay mbokk am nañ fa mbokk meen nañ fa amee mbokk gaño am nañ mbokk xame mais association dafa yënguwul ci loolu association maanaam gëm-gëm la association dafa am loo xam ni moo leen boole yow ak ñi nga xamee ni mooy ngeen di ànd di mën a waxtaan di mën a réunion loolu du deret waaye loolu gëm-gëm la objectif la kon ñii mënuma wax ca santuma leen parce que li ñuy daj ci bu nekk ci développé ci xaalis di def ci association bi mais li ñuy daj ci bu ñu dagg seeni ité ak mi nga la Europe temps di dem ba Mina wala di ñëw ba wala di dem ba ngir kon yéen mbokk yi nga bu def yéen a tax ñuy def parce que suñu bopp la defal parce que a nekk a baax kenn ku ci na association